Boy Niang. maa ngi ziar Boy Niang ñu rek di ñaanal suñu suñu frère suñu boppam may ko parce que lii ñu def yëpp pour dooleel ko ñaanal ko ndam. combat bi combat bi am moom la. waaw ñu ngi koy ñaanal moo defal ko ndam daal ah. ndam bi ko soxla daal Pikine moo ko soxla incha allah. sànq ah, moom mooy premier combat jeexal la moom waa dëgg neexul quoi comme li ko Amady waxee waaw dañuy ñaan suñu ma dafa ko ndam parce que combat am na solo trop suñu daal te yéene nañ ko ndam daal bilaay walaay. tey bés bu mag la ca Pikine tey ku gis tey ni stade mel 22000 places tey stade bi mi ngi doog a mel bu mag la ca Pikine. parce que bés bu mag la ci part combat bi Franc la woon ak Sokh mais Franc moo ñu ci moo ñu yee. te xam nga Pikine lu mu dugg rek dafa yëpp loxo parce que ñun lamb lu ñu soxla dañ koy jël. parce que kenn xaal ñu dañ caan dafa yegg fi ñu yegg si lamb Pikine da cee am cër bu mag waaw. dafa mel ni. en activité. waaw yan conseil nga jox sa frère. waaw maa ngi ñaan tamit maa ngi ñaan tamit en tant que lutteur ñu bokk ndey bokk baay amul violence France suñu frère lamb moo ñu boole nañ nangu ñu tànn ko ci jàmm mu ñibbi ci jàmm. amul xeer amul xuloo amul sànnada xeer quoi parce que ñu ñëpp abal lamb ay frère lañ quoi nañ ci gars yi jàppale quoi ku daan ñu xam ne lamb moo am ndam mais ñu ngi ñaan suñu bopp defal ñu ndam mais bu paree ñu ñibbi ci jàmm quoi incha allah waaw ñoo jëkkoon wax dañ sant bu baax a baax waaw soo ko fanaan dañuy ñaan yàlla yàlla nañu defal ndam